middle of seen sanga niiw xet bi loon leen fekka si xet bi sangakati niiw bi mu ne mu door di ñaan yàlla naan ko yàlla may ma sabur pour ma mun a jekkali sanga niiw bii ngir xet boo xam ne ñoom mii sanga munatuñoo sanga góor yi doon suul dañ yàkkamti pour gaaw suul because of xet bu bon bu leen doon fekk si si time durin sanga bi suñ morom yaa ngee dee yet still ñu ne duñ ci dinañ pati dinañ dem club dinañ sol lu gàtta dinañ mook yàlla dinañ jël seytaan di ko always jox crown seytaan di ko crown góor bu set ñu ne ñun duñ tuub te duñ change te dee yëngaluñ ñu te yé yëgaluñ ko sa suñu yaram inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yéen a ngi ko wax waaye ndax xam ngeen lu miin and it's very sad kuy dee rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un and that's about it xam ngeen ni nga ko bindee waaye est-ce que yëg ngeen meaning bi est-ce que feel ngeen ko ndax est-ce que xam ngeen ko ngeen bàyyi di caaxaan di nax seen boppa wallahi azim five minutes of status nga dee am and Gambia Gambia ñoo ñoo def dee léegi ñaawle Gambia ngay gis the same person mu def di tàggee dëj defaat the same person di celebrate birthday nit wala the same person ngeen a def dëj ngeen defaat keneen ñu ngeen takka keneen right after the dëj is takki keneen ñu ngi ko celebrate ngénte keneen ñu ngi ko celebrate sanse keneen ñu ngi ko celebrate allahu akbar ñu ne ragaluñ yàlla yéen a ragaluñ yàlla waaye wallahi azim nit ñaa ngi ragal yàlla nit ñaa ngi am this this taqwa and tawakkal in their hearts whereas they are so conscious about Allah whatever they do Allah whatever they say, say Allah whatever they wear Allah wherever they going Allah whatever they are touching Allah yàlla la ñoo jiital si lépp la ñoo def seen tànk du dégg fa xaraam seen loxo du tige lu xaraam seen gémmiñ du wax lu xaraam seen bët du xool lu wax xaraam duñ nokki lu xaraam jegewuñ lu xaraam demuñ fu xaraam because they are so conscious of rabbu samawati wal ard yaazal jalali wal ikram déedéet ñun moom dañoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te xamuñ lu miin xam ngeen lu miin si yàlla lañ jógee te si yàlla la ñuy dellu ah xam ngeen ne si yàlla ngeen jógee te si yàlla ngeen a dellu and yet still ngeen ne pati bi du leen raw club bi du leen raw ay paaya mère yi nga xam ne man képp ku passé tati yees ma gis la ngay def yenn pati yi dama dee toog di xalaat na yow yaa ngi conscious in the head are you okay you are 30 years old ñun time bu ñoo am 30 years time bu ñoo nekk xale mère yi amoon tati laa wa 25 sax i grand bu ba la ñoo sol solatuñ sa lu jëm si yenn bu bay waaye dangaa gis ku am 30 years xalaatuloo dee xalaatuloo yàlla xalaatuloo yonent bi xalaatuloo def lu baax xalaatuloo wax lu baax xalaatuloo jëm fu baax lu dul nga nekk si club yi waxuma sax occasionally yi su dul am Wally Seck am and stuff like that but club yi nga gis ay maire yu màgget jàppa foyi àdduna day ndaw su amaan àdduna bi yëpp a daan saat ñëpp a dee saat and then you see everybody daf dee change nit ñi time boobu su dee yi ndaw amee dangaa gis nit ñi dañoo utu sol lu bon nit ñi dañoo sol lu jot waxtu julli du leen raw ñu ngi ragal yàlla waaye léegi su dee yi ndaw amee nga gis nit ñi bind happy birthday the next page wala ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fii ñii nga celebrate ngénte ñii nga celebrate takka ñii nga celebrate birthday ñii nga celebrate lu leen neex and the same page boo bindee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñu ne duñ ragal yàlla ñun ñu ne duñ toppa yàlla ñun ñu ne duñ dégg yàlla yàlla taxaw mu ne bu leen def lii seytaan taxaw bu leen def lii ngeen yëpp yàlla and am the fit ne yàlla ne yow moom xaragul ñu ñun pareeguñ because anytime we free yow yàlla boo din nga si ñun yow yàlla li ñoo santa yëpp ñun mënuñ ko de loolu dafa bari te dafa diis pour ñun pour lan sax nga ñoo santa lu noonu yëpp who are you to tell us what to do yow yàlla non non non seytaane dafa flexible dafa free because seytaane mu ne lan pati leen ambiance leen toroxal leen seytaane ngeen ne da ngeen a toroxal seytaane ba si yow mal xiyaam jot ngeen ne seytaane moo ñu def loolu yi seytaane ne la na danga ma mus a gis mus ngaa gis seytaane nga jàpp yàlla yëpp yëpp yëpp ay waay ya allah waaye dégg la because ya allah soxlut ñun suñ jaamu ko ñun ñoo soxla pour jaamu ko ya allah soxlut si ñun dara because ña allah ñi ko war a saabalan ko saabal ñi ko war a jaamoon ko jaam mala bu xëy jàmmuloo yàlla suba ba guddi yow loolu du la fekk ngay dunda melentaan bu gën a ndaw sa su xëyee waxtu julli jot te jàmmuwut yàlla ngoon boobu du ko fekkee dinañ ko rey du picca noonu rab ya noonu jën ya noonu yéen gis ngeen lu yàlla binda yàlla moom juróom-ñaari asamaanama juróom-ñaari suufam te lu nekkaa ngi am bindee fi yàlla boo xam ne bët mënu koo gis demal si géej nga xool ñaata façon yi jën ñoo am nga ñëw si kaw suuf nga xool ñaata façon yi rab ñooy dox si kaw suuf boo leen a seetaan animal kingdom rek si nga dee waaru nga ne allahu akbar ndekete lii yëpp la yàlla defar da ngaa gis façon yi jën boo musut a gis si kaw àdduna demal si asamaan nga xool ñaata façon yi picca ñooy naaw si kaw di sab di sabal yàlla yéen doomi aadama yi ñaari type rek ngeen muy góor ak jigéen waaye ñun ñoo fi gën a yëf yàlla yàlla ne jàmmu leen ma five times a day ngeen julli ngeen ne déedéet loolu dafa bari si ñun ya allah because time is money te yaa ngi wees suñ time waaw ok yàlla nag am patient defaral ñu lu nekk option boo julliwut sa waxtu yi nga ñëw kër nga fay sa bor yi nga gis ñu si yab yàlla si ñu si yab yàlla ñoo xam ne dañoo egg si ba kër war a fay seen bor yi ñu ne ah man dama tayal bàyyi ba suba ma fay ko bori suba ma julee suba juli waale suba démba juli tisbaar juli waale tisbaar démba juli takusaan ku leen wax ne fay bor noonu la ba pare lu ma jaaxal doomi aadama bi dafa am fit am fit weesugut yow nga foog ne soo demee tëdda da ngaa eewwaat yow lu nga garanti sa boppa man lu ma jaaxal yow yow ban fit nga am nga xalaat ne yow yaa ngi génn di doxi ji sa soxla accident mënut laa fekk si yoon nga moto tampon la nga dee ñaata nit ñoo toog si seen biir néeg accident fekk si leen si biir néeg laka-laka am si biir kër ñu des fa gaz bu lekk ñu suffoqué taaka-taaka kër yu daanu tornado hurricane yow daal xalaatuloo dara lu dut yow am nga say plans doomi adama bu ragal yàlla doo plan doo am plan because you plan Allah plans and Allah's plan is always the best plan so moo tax doomi adama bu ragal yàlla you go by Allah's flow dangaa dangaa dunda based on yàlla dangaa dunda based on lan la la yàlla planal loolu mooy doomi adama bu am iman takwa ak tawakal you don't have plan for tomorrow Allah is the one who is planning for you so you wake up to do good pour nga def lu baax def lu sell la dëkkin bu sell la toppatoo sa njaboot Allah mu ne the best uh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne the best of the men are the best who is best to their kids their children their wife their family members waaye dekkaatuñ si àdduna boobu xam nga si ban àdduna lañ nekkaat fake wall liggéey lépp a fake moo tax su xoolal suñu yaram yi sax dañ ko féegal pour nga gis authentique foog nga puusu nga ñëw si dëkk boo xam ne dañ dégg yàlla xam ko rus ko ragal ko waaye ñun dëkki nasaraan yi nga xam ne dañoo bëreen wax suñ boppa yi naan ñu yàlla amut defal lu la neex àdduna bi benn la da nga koo dunda you only live once YOLO aka YOLO you only live once yaa nga yaakaar ne day amut lépp lu ñu fi yàlla musa promise àdduna bi ñu ngi koo teg suñ bët ñu ngi koo gis promise yàlla mustafil te yàlla dafa njëkk a bind dee balaa moo bind dunda ñun ñu ne ba tey duñ jàng duñ ragal yàlla duñ toppa yàlla duñ seet yàlla dañoo jël suñ naf si bakkan xam nga lu si gën a fon yee this is how I see it suñ suñ suñ ñeme yàlla yàlla mu bind la yow jaamam bi mu tegal la ay sarta mu ne la nii laa bugg nga dundee yàlla laa wax de xarasa balaa maa àgg foofu noonu Sénégal dafa am ku fa taxaw saaga yàlla muy benn am ibaadu rahmaan bu jóg mu saaga sëriñ yi ki saaga yàlla muy ñaar ñu jël ka saaga sëriñ ba ñu tegee ko benn place ka saaga yàlla ñu bàyyi ko mu dem may déglu oustaz Omar Sala mu wax lu am solo mu ne ñun dañ jël sëriñ yi wala nit ñi doomi aadama ñu respect ko ñu jël yàlla ñu yëpp ko waaye ma ne ko loolu mooy suñu everyday thing seytaane dafa taxaw ne kaay leen uyu ma sa concert yeeg sa Wally Seck yeeg Youssou Ndour yi yàlla mu taxaw mu ne kaay leen ngeen uyu ma si waxtu julli yi bu leen ko tardé kaay leen uyu ma si umra yi kaay leen uyu ma si acci ñu ne ko yàlla xaragum ñu ñun dañoo préparé suñ décembre ba janvier because competition yi sanse la Youssou Ndour dafaa ñëw Wally Seck dafaa ñëw ak yeneen artistes yu ndaw yi gala diina yaa ngee am ñu yes if pati ah ñun yooyu noonu moo ñu ñor because seytaane moo oote yàlla yàlla yow fu seytaane oote da ngaa loos ñu mel ni nag ñun ñoom moom suñu bakkan te koo fi gis life am mu ngi messed up because of lan déggu leen yàlla topp leen ko te yàlla mu ngi am patient daf dee toog muy seetaan ku gën a yab yàlla seetlu ko si biir bu fekkutee life am life am mu ngi messed up because yàlla aligns your life when you are with him he makes your affairs so easy wallaay lu tax man comme like days like this day ma dee naxari especially when I see a young people like young person die a very young person ma gis nit ñi ñu jaale ko and they don't even realize ne dee bi is so real and it can come any day any time and five minutes of status ngay am five minutes ñi la xam ñooy binda seen status bi you are gone I will miss you patati patata doo gis kenn ku fa binda loo xam ne daf laa ñaanal ay waay buñ xamee lu ñoo xaar si bàmmeel the punishment of the grave buñ xamoon jaani ñàngoor yu ñu faa xaar every day nga dégg ku laa waaree muy wax li ma benn cheikh laa dégg muy waare mu ne dafa am jigéen bu sangakati néew yi ñëwoon sanga fekka làmmiñam bi génn na ba si casam bi ba gaay ñëwee bugg a dugal làmmiñ bi saa yuñ poussé pour dugal làmmiñ bi mu mel ni dara mooy force pour làmmiñ bi gën a génn si sangeekaay bi bu ñëw sanga ba in the middle of seen sanga néew xet bi loon leen fekka si xet bi sangakati néew bi mu ne mu door di ñaan yàlla naan ko yàlla may ma sabur pour ma mun a jekkali sanga néew bii ngir xet boo xam ne ñoom mii sanga munatuñoo sanga góor yi doon suul dañ yàkkamti pour gaaw suul because of xet bu bon bu leen doon fekk si si time durin sanga bi few days pass mu dem si family members yi ak xarit yi mu dem lacce leen mu ne leen kii lan lam def ba tax ñun buñ koo sanga ñu mel ni ñuy suffocate mënuñoo nokki mënuñoo def dara ñu ne ko kii daf daan def ñaari nit xuloo ngir jaxase ak ruube dafa ruube làmmiñam bi moo ko moomoon mu sa fàppa si nit ñi muy kàcca du wax dëgga dafaa ñëw mu ne la diw sàngam diw dee ma wax lii ñëwaat ne yow su ko defee nga mer nga tontu comme li dee xew rek suñ communauté mu delluwaat si kooku noonu mu ne kooku noonu ne yow dee ba diw sàngam lii la la waxal ndaw si noonu la fa nekkee waaye bu mu deeyee si fii laa la wax si àdduna la yàlla dooree di ko wanalee boppam misaalam pour wan leen naka la yàlla fooree yàlla faa toog di la seetaan yàlla is very patient because yaakaaruñu ñun doomi aadama yi in any way shape or form ñun ñoo ko yaakaar instead yàlla bam ñu bindee daf ñu binda xam ne ñun dañ disobéyan lañ ñun ñun duñ follow rule moo tax yonente yàlla adam bam ko ne bul lekk pom bi seytaane ñëw ruux leen ñu dem lekk pom ba yàlla mu ne leen aha mu ngo yéen comme que doo leen dégga te dama leen wax ne jaamul leen ma lii mooy nekk seen punishment yàlla depuis boobu mu ngi ñoo wan ne punishment dafa am consequences lépp loo mun a def si kaw suuf dina dafa am consequences every day ma jox leen misaal si seen boos si seen place si liggéeykaay yi ñemewu leen faa def yéen a noon sens pour lan ngeen ne yàlla ngeen yàpp because liggéeykaay yooyu yéen a ngi ñëw ñu ngi teg seen loi teg seen rules and regulation ne la ñun nii lañ bëgg a ngeen doxee ngeen respect ñooñu noonu allah subhanahu wa taala mu ne nii laa bëgg a ngeen doxalee dama bëgg a ngeen jóg di sangu ba set ñëw taxaw si wattu julleekaay bi julli julli bu sell soo leen a julli bi attentif xalaat leen ma xalaat yow man xiyaam xalaat safara xalaat ajjana déedéet time bi ngeen a julli ngeen a xalaat man de suma jëkkër tey becco bii laa ko solal ak nayti bii laa bëgg a solal ngay xalaat lan ngay def góor ñalee nga xalaat bu xalaat yu ñoradi ñii nga xalaat pati bañ war a dem programme ñii nga xalaat dress yan lañ war a sansé yooyu noonu duñ concentré ci julleekaay bi joxuñ yàlla attention joxuñ ko focus suñ paree ñu ne waa maa ngeen ñaan yàlla nangoot suma ñaan wala lii laa bëgg a yàlla mayut ma ko yàlla ku ko fa nekkal mu nekkal la mu ne yow sooy dox di ma utal seen hadis ba ko booy dox di ma utal seen man damaa daw boo ma jegeñee si si loxo am lent man ma jege la full lent yàlla moo ko wax yàlla duy fail promise am waaye ñun doomi aadama yi ñu ne ñun dañ ñeme yàlla allahu akbar every day ma wax ko kan mooy dee nit mu toppala si bàmmeel mu ànd ak yow kan moo la bugga bem ne yow sa dafaa dugga si yow bàmmeel bañ nañ ko ba soo deeyee sa mbokk yàlla di njëkk a daw ñoo laa njëkk a ragal kaay ngeen sanga niw bi ñëpp di daw looloo tax i sangakat yi niw am lu tax sa waa kër yi duñ la sanga soo deeyee te bés booy dunda ñu ngi laa ñeme waaye bés boo deeyee ñëpp daw la kenn sa doom bi nga jur sa biir sa def laa daw sa sista yi nga bokkal ndeya baay dañ laa daw kenn du la ñemee jege kenn du la ñemee sanga ah foofu lañ la dee njëkk a bàyyee eloon ñu wàccee la si suuf jël basang tëral la si basang raap la ni sandwich dugal la si gannaaw tronc ki moto kenn du la ñemee def si motoom kenn du la ngoo ama yow rapport lal bi nga daan fanaan kenn du fa ñemee tëdda ñëppay ragal hmm. kooku mooy dee kooku mooy dee mawti balaa ñëw nag dafaa yónnee si ñu ndawam yi ñoo ñu ñëwagum ngay aj sa buti di xool buy def kati lu bon nga ngay wiiri waara fu nekk di tiit di xuli di def i manière di def i style because yaa ngi woon àdduna joxuloo benn attention ya Allah faalewul loo ko dund loo ko ngeen ne da ngeen naa dunda si àdduna ki leen créer ki leen sàkka ki leen moom ki leen moom ngeen ne doo leen ko jox taay mam doo leen ko saabal faalewul leen ko lu leen nee sol fu leen nee dem lu leen nee wax xalaatu leen yàlla am na ñoo xam ne dañoo jóg i bés i diis i diis i diis i diis doo leen dégg sax ñu ne laa ilaha illa allah subhanallah astaghfirullah aouzu billahi mina sheytaani rajim duñ si def dara di nga xëy rek di dunda yow nga xëy saabaluloo yàlla képp koo xam ne yaa ngi xëy suba ba ngoon waxuloo turi yàlla sikuroo refuge si yàlla dénkaanewloo sa boppa si yàlla yow nga ne yow da ngaa demal sa boppa yow yaa gën a fulis àdduna bi yëpp te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko mu ne believers yu fulis yi da kay xëy di def loolu noonu yow mi maa seetaan su fekkee yaa ngi xëy suba ba ngoon nga ne yow doo wax yàlla jërëjëf yow ku ñàkk fayda nga te soo deyee di nga fa fekk yàlla malaayka